na asalaamaaleykum mbokki taalibe yi gannaaw bañ leen nuyoo di leen siyaar bu baax ci bis bu tedd bii di bisu Serigne seex Fall Baye bu góor ah di jiital ak cant nag yoo xamante ne ñu ngi ciy jiital Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ci teg sëñ Modou Mbenda Fall moom maam Cheikh Rahim di wax nag ne bis bi moom li ko waral tey mooy Serigne Cheikh Fall Baye bu góor te ku nekk Serigne Cheikh Fall bu Góor di ne maam Cheikh Rahima Fall te ku ne maam Cheikh Rahima dinga wax seex moo Cheikh Modou Moustapha Fall te ku wax Cheikh Modou Moustapha Fall di nga wax Serigne seex Fall Baye bu Góor ah te ku wax it sëñ Cheikh Fall Baye bu Góor danga wax Serigne Cheikh Ndigal Fall bi nga xamante ne moo ñu jox ndigalu bis bii nga xam ne mooy ndigalu waajuram di sëriñ Cheikh Fall baay bu Góor bis bi nag dafa di bis boo xamante a ah, dafa nekk bis bu rëy ci ñun suñu sëriñ di sëriñ Cheikh Ndigal Fall mi nga xamante ne tey moom moo jiite képp koo xamante ne yaa bokk ci sëriñ sax Fall Baye góor tey moom mooy sa kilifa a ah, digtal ñu bis bi ci ñetti kàddu mooy kenn ku nekk ku yaakaar sëriñ sax Fall Baye góor dëkk ba nga nekk na nga fa toog nga màggale ko fa ci kaw màggal gi nag na ngeen fa jàng limub xasaayit bu ngeen mën na ngeen fa jàng salaatu ala nabi bu ngeen mën ak xulwaa bu ngeen mën na ko fa jàng ah bu loolu weesoo it na def ay bernde yoo xamante ne jox ko jaam ya nga xamante ne ñoom ngeen fa nekkal muy ay taalibe ah bu loolu weesoo it li koy tëj mooy zikrulaa Sam Fall mu ñu digtal nag ci suba ba léegi ci lañ tàmbali ca 7 heures du matin ba léegi ñu ngi ci bis bi nga xam ne moom lañu jaglale Serigne Cheikh Fall Baye Góor a ah, lépp luñ ci def nag ñu ngi ñaan suñu borom ak Serigne Cheikh Fall Baye Góor ci barke Serigne Cheikh Ndigal Fall ah ñaan yiñ fi ñaan yëpp mu fekk ko ca foofa nga xamante ne ah yàlla dolli ko ay leeram foofu mu tëdd ah yàlla taas ñu ci barkeem te xam ne ñun moom rek lañu am. Ah, gannaaw nag Serigne Cheikh Ndigal Fall mi nga xamantene ne moo ko fi nekkal wax dëgg fa yàlla diir bi mu yoree njabootu Serigne Cheikh Fall gi yàqu ci dara lam wara war a warloog ñoom ma ngi koy def fa mu jaar ak ñoom ma ngi def yor xalifa gi ci anam bi nga xamantene ne ñun taalibe yëpp am nañ ci mbégte ah bu loolu weesoo nag dañuy gërëm suñu jëwrin ci kër gi nga xam muy Baye Mbaye nga xam foo waxee Serigne Cheikh Ndigal Fall da ngay wax Baye Mbaye Ka ba tax na bi Baye Mbaye Ka jotee ndigal li ci Serigne Cheikh Ndigal Fall ak ni mu ko bëggee tey ñu nekk fii ci këram a ah, di ci màggal bis bi nga xamante ne moom lañuy ñuy màggal sëriñ Cheikh Fall baay bu góor borom Saam. na Joona laa tudd waaw ah, di sant yàlla nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér Mbacké ba lay sa Euh, di ñaanal xalifa Baye Fall sëñ Amdi Mbenda yàlla yàggal ko fi te wéral ko waaw comme li ma laaj rek mbaykat dañoo dëkk li ñu li itam boobu ba tey mu koy wéyal décret bi ba mu jógee ci sëñ euh, sëñ Jëmb Fall sëñ Cheikh Jëmb Fall sama kër la ko indi ne ma kat yow ya ma ne won señ be ñu boole euh, la señ bi boole won nak yalla indi noko. mu ngi ni moo taxit yow la ko njëkk présenté muy ay 4 heures euh, fekk amna na bu jangal sama doomi alcorane mu ne ko am liral oustaz bi liir nako ah, li de ci señ Cheikh jëm Fall la jóge moy ci lettre bi mu ko yónnee won ne ko ya jité khalifa Baye Fall fatik la indi la mako la ma sama kër. ah ne ma yow de Lang ma waxon ñew na waaw mu na ma ne ma mu ngi ni après la ko jox oustaz yi doon jangal sama dom yi mu ne ko liral oustaz bi dal di lire naka ah li de ci seigne Cheikh Jëmb Fall la joggé eh. waaw néna yow ya jité manam ku lu bay Fall fatik waaw ah bobo it mu koy doxal bob batay waaw ndax ken mën ta wax Serigne Touba baye mam Cheikh Ibra Ken mën ta wax mam Cheikh Ibra bay sering Touba kon nak nañu serigne Touba bolé won ma ñoo wax ko ko ndax manam gis serigne euh, gënt serigne Touba euh, ah suñu borom dala mana mëna baxé rek hamna waaw xamna ci yermandem ak coobareem waaw ndax xamna né du lu ko défal euh du dayo buma am waye nak bo bee lay bëggal bopam yërem la gol la ci bopam sant yalla bo batay it mu koy doxal waaw Sam Fall yi moom chaque jour nii la waaw ñun moom ba mu toxoo ca koñ ba moom namm nañ lii moom waaw Zikrula bi altine bu ne day jib waaw waaw Sam Fall bii ngay dégg chaque altine nii la koy defee waaw ah sant yàlla nag ndax eh, dañ ko daan dañ ko daan def chaque jour. Ah, waaye te heure buñ ko defee itam wax dëgg yàlla euh, du bàyyi kenn na man mi nga xam ne nii comme la ma ko waxoon loolu lay topp rek boo waxee mu ne sëñ bee ma boole ak yow waaw ah, te loolu it du lu ndaw Nak wax dëgg yàlla du lu ñu fabriqué du lu ñu ndax foog naa Serigne kenn du ko waxal naka su dul noonu waaw kon nag ñi sant yàlla rek te di ko ñaanal nag suy ñëwaat ah ñaan yàlla fekke ko ak jàmm rek jaaju jaajuwaat rek nak ndax nak eh, talibé mom eh, du wacc dañ koy wàcce rek waye du wacc waaw jaajuwaat rek ñaan yalla fekke ko ak salam. ak salam eh, ta buñ koy fekkee yit yalla defal ñu ay xéewal ak wër ak tal ak wërsëg bu yaatu nak waaw ndax yoonu Baay Faal mom mo yoonu murit rek amul tanku ginnaw waaw tanku kanam rek ci kaw ci kanam rek ñaan yalla dal yalla may ko gudd fan bu ak ak wërsëg waaw ndax nag wax dëgg yàlla eh, jàmbaar la lool nag waaw ci yoonu yoon bi jàmbaar la ci lool nag lu waay le maanaam ku soob daal mu dëbbale la waaw macha allah sant yàlla. Baye Mbaye Ka nekk représentant xalif général des Baye Fall ci diwaanu Fatick nekkal fiit ki nga xam ne mooy sama wasila muy Serigne Cheikh Ndigal Fall. waaw bésu tey bi de li ko waral mooy. dañoo amoon waajur wu baax waajur wu tedd waajur wu ragaloon yàlla waajur bu bëggoon sëriñ Touba di sët ci maam Cheikh Ibrahima Fall di doomu sëñ Modou Moustapha Fall ñu ko doon wax sëñ Cheikh Fall Baye bu góor sëñ Cheikh bu góor moomu nag ñun xamuñu kenn ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall ku dul moom ndax ñun dañoo ñëw juddu fekk suñuy waajur. nek fi ci dekk bi top jëm joju ku tedd koku and ak mom di liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra be ñun ñu tollu ni ñu tollu ba yobbu suñu wajur yëpp ñu ñibi Touba ñun ñu des ci dekk bi and ak leram bo xamante nak mom lañu wax Serigne Cheikh Ndigal Fall mo nek ci bop kër Cheikh maam Cheikh euh, euh, sëñ Cheikh Fall Baye Góor. sëriñ boobu nag moo ñu jox ndigal ne kenn ku ci nekk fa nga nekk santale leen ma sëriñ bi ngeen wàcce ci alxuraan durus ci kuréel ci zikrulaa bi yi ñu mujje ñu def ko bu ko defee ñu ñaan kenn ku ci nekk dem ba déwén buñ jotaatee ndigal ci moom it ñu defe ko rek ni nga xamante ne noonu la ko bëggee ndax ñun nag moom Baay Faal lañ ndigal rek la ñuy demee duñ demee suñu bakkan moo tax boo gisee ni mu demee nii gis nga ko bu ma oon siin gépp ñu uy si ma ndax yow wér na la ne yow gis nga ma xam nga ma siin gépp bu ma loon woroon tey fii ci kër gii kenn du fi xej mais ni ma ko sëriñ bi santaane rek noonu laa koy defe mooy li ci am solo mooy alxuraan bi ñu xëyee ci suba Cheikh Mbacke Ndaw di imaamu Al Azhar ak ki nga xamante ne mooy ilimaanu muriti Fatick yëpp région bi di sëriñ Fallou Samb ñoo ànd ak taalibe yi wàcce fi alxuraan yow teewa teewoon nga ci alxuraan boobu nag ak xasida yi ak zikrulaa bii moo ci gën a am solo mbooloo mu bari am na solo gaa ndax kuy demal ay nit boo xew leen ñi ñëwal la mais nag man damaa bëggul loolu bu ma bëggoon loolu ah danaa woo siin gépp ñu ñëw fekk si ma fii te xëy nayit it mën na am ñu dem ba am ci ndigal bés buñ ci amee ndigal ñu jëfe ko mais daal ndigal li daal moo nekkoon lii nga xamante ne moom laa la wax ci loolu nag maa ngi ci sant taalibe yëpp di sant ñi jot a ñëw ak ñi buggoon a ñëw te ñëwuñu ñi ci jàpp te bëggoon cee jàpp te jàppuñ ci ñooñu ñëpp maa ngi leen di sant turi Serigne Cheikh Ndigal Fall di sant nag eh, ki fi nekkal sëriñ Touba di Alaaji Gay Jeng maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall mi ma teg fii ci dëkk bi ma nekk Cheikh Ibrahima mu nekk sama Serigne Touba maa ngi koy ñaanal li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba yal nañ ko ànd ak moom te mu defe ko ni mu ko bëggee ci barke Serigne Touba. bu loolu weesoo maa ngi sant administration bi muy gouverneur de la région maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal moom tam li mu bëgg moo ko xam moom ak préfet ak mbooleem ku nekk ci administration bi li ñu bugg ñoo ko xam yal na leen ko suñu borom defal di sant it ki nga xam ne mooy maire dëkk bi di monsieur Matar Ba ak président conseil départemental ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di sant nag ci à travers joom képp kuy politicien nekk ci dëkk bi ñu ngi lay sant jaarale ko ñaari jëmm yooyu di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw rawatina nag taalibe yi nga xam ne ak soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi yendu fi ci huit heures ci suba mën naa wax ne cinq di du matin ba léegi nii ñoom ñu ngi fi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall li ñu bëgg ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Serigne Touba maa ngi jërëjëf di leen jaajëfal yéen télé télé bii eh, Sine TV bii dafay sama Sine TV di sama Sine TV doom maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko ajana yàlla yokk ay leeram ci barke Seydina Mohamed moo moom ak waajuram wa kon maa ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf